xam sa démb xam sa tey Ba plus connu sous le nom de Maba Diakhou est né à Tawa en dans le Rip il est le fils aîné de Malick Ba plus connu sous le nom de Thierno Ndiogou un marabout originaire du Fouta venu s'installer dans le Saloum sa mère Diakhou quant à elle originaire de Toubé Dieye dans le Gandiol est au Jolof. Maba le lien entre les régions du pays. Maba Diakhouba est le lien. Il est le lien entre le Jolof, le Gandiol, le Fouta, le Sine et le Saloum. Maba Diakhouba, rappelons-le, le Séné de Malick plus connu sous le nom de Thierno Ndiogou Maba Diakhouba, rappelons-le, qui a travaillé pour l'expansion de l'islam a pour père Thierno Ndiogou Il a reçu sa formation coranique à Mbakol dans le royaume du Cayor, puis au Jolof. À la fin de ses études, il fonde une école au Jolof où il séjourne pendant quelques années avant de rentrer au Saloum. Maba décline le poste de cadi du RIP que lui propose le roi du Badibou et il préfère se consacrer à la formation des enfants. Il dispense dans cette école coranique un enseignement apprécié par les grandes familles musulmanes qui lui vouent un grand respect. Maba Diakhouba jouit alors d'une considération de tous les autres habitants du Saloum, où la religion traditionnelle était pratiquée par la majorité. Ces journées sont partagées entre le Coran, les sciences islamiques et les travaux champêtres. L'action du marabout Maba Diakhou prend une autre dimension après la visite de l'âge Omar dans le Saloum en 1849. Maba Diakhou a juste 40 ans. Baba Diakhouba est par El Hadj Omar Tall et il est investi par le khalife Foutanké à Kabatokou. El Hadj Omar l'encourage à se préparer en vue de lancer plus tard une guerre sainte. Baba prend le temps de constituer une armée et de s'équiper. Il commence la mission dans sa province natale le Badibou, appuyé par les musulmans du Saloum. Il arrive après une série de combats à bout de la noblesse régnante. En il contrôle tout le Badibou et en devient le maître. Et il renomme Badibou Rip. Maba Diakhouba s'autoproclame Almami du Rip. Il construit plusieurs citadelles des Tatas pour protéger le pays contre les attaques ennemies. Baba Ba renomme la ville de Paos d'Imar et l'appelle Nioro du Rip en l'honneur de El Hadj qui avait conquis Nioro du Sahel au Soudan dans l'actuel Mali. a offert l'hospitalité à Makodou Fall, damel du Cayor. Maba cherche à étendre son autorité aux autres provinces du Saloum. Il livre plusieurs batailles à Tchikat, à Ndiob. Il attaque Kahone, capitale du royaume du Saloum, et Kaolack. L'Almami contrôle une partie de la province du Ndoukoumane. Il affronte à Koubandar et à Berending, les troupes des princes des royaumes mandingues de Wulu de Kiang, alliés à la noblesse déchue du Rip. Son armée sort victorieuse de ses assauts. L'Almami Maba reste maître du Rip. Mais la couronne de Boursaloum reste très farouchement défendue par l'aristocratie guerrière. Mame Diakhou Ba offre l'asile à Lat Dior, et à son neveu Albouri Ndiaye, Bourba Djolof. Tous les deux étaient des rois qui avaient été évincés du trône avec la complicité de l'administration coloniale française. Cette alliance déplaît fortement à Louis Léon Faidherbe, gouverneur du Sénégal. Le marabout Maba Yaxu Ba propose à Lat Dior de se convertir à l'islam. Ce dernier accepte et s'engage aux côtés de Maba dans la guerre sainte. Conscient de sa forte représentativité, les Français reconnaissent finalement Maba comme almami du Badibou et du Saloum le 27 décembre 1864. Mais les divergences ne tardent pas à ressurgir quand Baba intervient au Jolof. C'est ainsi que, le 28 octobre 1865, Baba Diakhou Ba et Lat Dior Diop combattent ensemble les forces coloniales dirigées par le colonel Pinet Laprade, adjoint du gouverneur Faidherbe. Rappelons que lors de ces affrontements, le colonel Pinet Laprade regroupe 2000 chevaliers, et 500 cavaliers volontaires du Waalo, du Ndiambour et du Diender. Les Français subissent de lourdes pertes à cette bataille de Khouroupaté Badiane. Et d'ailleurs, à la fin des combats, Pinet-Laprade est blessé à l'épaule. Lat Dior voulut ensuite venger l'affront que lui avait fait subir le roi du Sine Kumando Fen qui avait refusé de l'accueillir pendant son exil. Il prit la route du Sine et attaque par surprise Kër Ngor avec toute son armée. Lat Dior et ses troupes partent ensuite combattre à Diakhao, capitale du Sine. Mais la riposte des Sérères les oblige à se replier. Xam sa démb, sa tey. Les deux camps se donnent rendez-vous à Fanden Tchouchoun xare on l'entend chanter voilà la cause de ce chant la bataille est meurtrière Baba qui dirige les combats refuse de se retirer malgré l'insistance de son compagnon Lat Dior fin stratège Baba tombe les armes à la main au cours de ces rudes affrontements à la bataille de Somb le 18 juillet 1867 Voici raconter l'histoire brève de Maba Diakhou Ba. chanter l'épopée de l'almami du Rip. Voici chanter l'histoire de l'enfant de Diakhou Dieye. Voici raconter l'histoire du fils de Ndiogou Ba. est le lion, il est le lien, il est un héros incontestablement inscrit dans la liste des noble du panthéon de l'histoire de l'Afrique. Il a résisté à la colonisation. Il s'est battu pour étendre l'islam. Quand on n'a pas un idéal pour lequel on doit se battre, on ne mérite pas de vivre, avait dit Martin Luther King. xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa xam sa démb xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunum xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee ku mag di waxtaanee doomi jaxu jéey ja di waxtaanee doomi Malick Ba Malick mën doon wooyee na Ndiogou Ba kon tey ku nuy waxtaanee ki ñuy waxtaanee mooy Mouhamad Ba waaye ci wan tur lañ ko xamee ñu ko gën a xamee ci turu Maba Diakhou Ba ma nga gane àdduna ca tawa ca rib ca atum 1809 ana kuy baayam Malick Ba ana nun ko gën a xamee Thierno Ndiogou Ba kii tooro dala di den yankee Ndiogou Ba nag sëriñ la woon bu mag bu jóge woon Fuuta Tooro ñëwoon toog Saalum waaye ndayam jaxu jéey moom Maba jaxu ma nga jóge tubbe jéey ca Gànjool waaye nag Jolof la juddoo moo tax Maba jaxu ba mooy mbokkum ñëpp mooy mbokkum ñëpp ndax moo boole Jolof ak Siin ak Saalum ak Fuuta te ku tudd Fuuta danga tudd bundu kon nag Maba Jaxu Ba mooy doomu réew mi ñi ngi jàngee alxuraan fale ca mbaaxool ca biir Kajoor joge fa dem Jolof bi nga xamee ne jàng na ba noppi nag mu samp daaraam ca Jolof toog fa ay ati at soog nag ñibbi Saalum bi magsee ñu ne ko dañ lay def xaadi rib mu lànk buur bi nga xam ne moo fa newoon di buuru badi bu màbb na ko dama bëgg nga ba ma mayar gone yi ndax loola mooy li ma yitteel ca noonu mu toog jàngale-njàngale moo xam ne kër yu mag yépp nangu nan képp kuy kërug diine gu mag nangu nga jox ko cër nag wekk ko maa ba joxu ba nag waxuma la ñu gëm diine waaye ña gëmoon seen diiney maam sax dañ koo joxoon cër ndax nangu ne ku jib ku yiw la maba joxu ba ananum daan yendoo xanaa xëy di waaxu rek diggante alxuraan xam-xamu fiq ak di bay di dundee loolu la daan yendoo bis bu ne li war a xam mooy Maba Jaxu Ba keroog ba ko Alaaji Omar Tall ganee ca Saalum ca atum 1849 parce que am ñeent fukki at Maba Jaxu Ba keroog la addunaam soppeeku keroog ca la jëfam gën a màgg Maba Jaxu Ba nag Alaaji Omar a ko jàngal wirdu tijaan moom it moo ko samp moom mi nga xam ne Alaaji Omar mooy xalif Futanke ba ca Kabakoto Alaaji Omar moomu Taal moo ko may fit nekkoon nag na waajal boppam ndax yàgg-yàgg dana jiyaat ma ba jaxu di nit ku dal yàkkamtiwul dara daa di toog dajale ay jàmbaar wuti ngànnaay di ko def di ko def di ko soxla ba amin ngànnaay mu soxla keroog ba mu ne bërët ne damay jiyaat ana fu mu njëkkee xanaa dellu fa mu juddoo woon bàyyi ci sa weewu tànk ca badibu ma nga amoon nag jàppaleeg julliti saalum yi ginnaaw bi mu xeexee ay xeex yu bari képp koo xam ne garmi nga woon te amoon fa cër te yoroon fab dëkk mabba joxu nangu na ko téye ci ay yoxoom 1861 Maba Jaxu moom na Badibou ne ko tuddatoo Badibou gox bi rip nga tudd Maba Jaxu nag ne bis na tey jàpp leen ne man may almaami du rip fii ci rip may almaami bi kenn tuddeewu ko tudde naa ko sama bopp mu daal di tabaxi tata nag tata ya ngir képp ku jóg ngir song leen rek ba Jaxu am lu mu gaaree ak lu mu aaree ay ñooñam ca noona sax dëkk bii nga xam ne dëkk bu mag la di dëkkub taax di Pawos Dimar Maba Dindu tur yu tuddee ko ñooro du Rip ana lu taxoon mu def loola delloo njukkal ana kum doon delloo njukkal Alaaji Omar Taal ndax Alaaji Omar dafa dem ca Soudan ca Mali fekk gox bu tudd Nioro bu Sahel mu nangu ko mabba nag jël pawas dimaar ne ko danaa tuddee ñooro bu rip di ko fàttali ko alaaju omar ak jëfam ju mag ja bu nu fàtte ne ca jamono yooya keroog da mel ma kodd fal ba mu wàccee ca kajoor mabba jaxu ba da ko dalal moo tax sax gouverneur fédéral ba daf ko daan wax na ay yaay buuru buur yi ndax buur bu nu wàccee mbaa amatul fu mu ne nekk ci yalwaanum buur nga dalal ko waaye Maba Jaxu loola doyu ko mu ne nag lépp luy suufu saalum dama ko bëgg a nangu ca noona mu dem xeexi ci xaat ak njob dal ci kaw kawoon mi nga xam ne moo doon péeyu saalum ak kawlax waaye Maba Jaxu ba almami dem sax ba ca ndukkumaan mu am ca suuf sa lu mu xëcc tee waaye ci dëkk bi ñu naan Kwinala wala fa ñu naan Kubandar ak fañ naan Berending fa la daje ak doomu Mandeng ngi ya jóge wulli ak Kiyan ñoom ña àndoon ak garmi yi rib yi màbb daloon seen kaw te gox yooyu la màbb xeex ñoom xeex leen dal ci seen kaw daan leen Baba Jaxu Ba moom rib toog ca kawam di buur di bummi di def di dindi waaye buur Saalum moom nanguwul ndax garmi ya nga xam ne buur Saalum ci ñoom la aju ñoom danoo taxaw di xeex ne du nangoo joxe dara keroog ba Lat Joor génnee dameel du Kayoor Lat Joor nga xam ne moo jiite woon Kayoor keroog ba mu génnee keroog ba Alburi Njaay génnee moom jarbaat ba di buur ba jolof te tubaab bi ñu xeex ak moom te bañ mu yeew leen bañ ku leen jàpp jaam ñu sàmm seen ngor tuxu ngir mën a xeexee feneen ana ku leen dalal xanaa du màbba jaxu ba waaye ña màbba nag dafa jëloon ci seen néeg jëloon ci seenum néeg soxna soxna soosa di soxna Mati Njaay kon nanu jàpp loolu ñaari buur yooyu keroog tubaab yi xeex ba nu wàccee leen muy Alburi ak Lat Joor ana leen dalal mabba Jaxu waaye tubaab bi keroog ba mu yeewoo dégg na Lat Joor fanaani na ca Maba Jaxu dégg ne Alburi fanaani na ca Maba Jaxu ah gouverneur Léon Faidherbe bu lui ne loola munta ne ndax loolu wóorut ci France ndax ñetti jàmbaar yooyu ànd bokk fu nuy fanaanee di yëkkatee ndoo di dóorandoo loolu baaxul ci tubaab yi moo tax nag bi nga xamee ne Maba Lat Joor agsi na mu ne ko Lat Joor te ngaa tuub Lat ne ko duma la bañal dara loo ma ñaan ma nangul la ko ca noona la Lat nangoo daa di ànd ak Maba Jaxu Ba nag ca jiyaat booba tubaab bi xam ne Maba Jaxu moom la nit ñi joxoñ mu ñàkk pexe ne ko nag léegi yow yaay almaami badibu ba nga xamee tuddee na ko ñooro loola ma nga amoon ca saalum ne ko yaa yor badibu yaa yor saalum loola kañ la amoon ñaar fukki fan juróom-ñaar ci décembre ci atum 1864 waaye gis ngeen Maba Jaxu ba mu demee Jolof nag ne dafay jéem lu mu fa def tubaab bi nekko du ko nangu moo tax ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci octobre 1865 Mabba ak Lat Joor daa xeex tubaab bi booba ana ku jiite tubaab yi ñu ngi ko tuddee woon colonel la laprade moom moo toppoon ci Louis Léon Faidherbe bu gouverneur waaye Pinet-Laprade ngir mu jàkkaarloog Lat Joor jàkkaarloog ak almaami Maba Jaxu Ba Pinet-Laprade ma nga jiital ñaari junniy jàmbaar yu war fas juróomi junniy borom ngimiñ fetalu ñaari ngimiñ yuy dox ak juróomi téeméeri jàmbaar yoo xam ne dañoo ñëw ànd ak moom jóge waalo jóge njàmbur jóge jandeer waaye cey keroog métti na ci tubaab bi keroog tubaab bi bëgg na ngoon jot te ngoon munta jot keroog tubaab bi bëgg na jant fenk te jant fenkut keroog ca xuru paate bajaan Lat Joor ak Maba Jaxu wan tubaab bi lu ne Pinet-Laprade sax keroog ca la amee gaañu gaañu ci mbaggam xam sa démb xam sa tey jàmbaar yaa ngi nii ana ku nuy waxtaanee xanaa du Maba Jaxu ba Lat Joor ginnaaw bi nu amee ndam ci tubaab yi mu ne nag day dem xeexi ndax buur siin ku ma doo fen fam ak juuf daf ko bañaloon ngan keroog bi mu génnee kajoor diwut fu mu dal mu ne day dem xeex ak ñoom Lat Joor daa di jóg jàpp yoonu siin daa di bett séeréer yi kër ngóor dal ci seen kaw Lat Joor yamut foofu ak i jàmbaaram dafa dem xeex jaxaaw nga xam ne moo doon pays siin waaye séeréer yi keroog jóg rek defee say boole fit ak njàmbaar jom ak fulaak fayda ne mukk du fi am Lat Joor mujj a dellu gannaaw waaye yamale wuñ ko fa de xam sa démb xam sa tey ana nun def xanaa ñu joxe ndaje jàmbaari Lat Joor ak jàmbaari siin ne nanu tase fan ngeen war a tase ñu ne fandaan ci cuuñ fandaan ci cuun booba da ngeen ko dégg xare ba ca cuucuun ah keroog ca wadd ci bakkan bëri na Maba Jaxu bi ko Lat Joor ne ko dellul gannaaw ndax fii nu ne xeex bi baaxut ci yow Maba ne ko mukk gor du dellu gannaaw ci xare ndax xasoon naa ba noppi Mabay xeex xeex bay metti séeréer si xeex jàkkaarloog Lat Joor ak Maba ba Maba daal di daanu waaye Maba Jaxu ba keroog ba muy daanu ca somb fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet ci atum 1867 gànnaa yaa ngi ciy loxoom dawut daayut dellut gannaaw mabba jaxu ba moom doomu njóogu ba cerno moom doomu jaxu jéey xeex na ak tubaab bi xeex na ngir indi diine am na gëstukat bu mag boroom xam-xam bu mag bu ñu tuddee Martin Luther King nee na kuy dund te amoo la jaral dee yeyoo woo dund nit kuy dund war naa am lu ko jaral dee ba Jaxu Ba Afrique jaraloon na ko dee ba Jaxu Ba diine jaraloon na ko dee ngorom jaraloon na ko dee moo doon buuru buur yi ku jaaxle ñëw mu dalal la keroog nag ba mu daanoo wayam ca jóg ta du fay ba mukk xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Goethe Institut